asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun ci sbt média point com amaana ñu mbégte ak kontaan ñëwaat fii ci arène nationale ci journée bu mag bi nga xam si nii ki nga xam si moom mooy sëñ Modou Niang production moom moo ko tëgg muy samedi le 15 février fii ci arène nationale mu mel ni que grand combat bi mi ngi dox si Kaaw Cissé écurie Dalifor ak ki nga xam si moom moo di Concorde écurie Kër mbay Fall waaye combat spécial bi dina dox si diggante moom moo di capitaine écurie Bada Dione ak Talfa écurie Dóor Dóoraat waaw saa ngee ñëm fi dina laale dof 40 dof dof dof 40 ans fi laale waaye Boy Bordeaux dina fi laale ak Baye Baye Johnson écurie fekkee ma si boole fils de Sam Sam dina fi laale ak fiis de fils de Double Less ki nga xam se ne ni moom moo di booy Sey numéro 2. dina laale ak ki nga xam ne moom moo di canal bébé bébé Pafal dina fa laale ak ki nga xam ne moom moo di 10 mu mel ni que combat baa ngi noonu troisième combat bi arbitre bi sifflé na sergent écrit Grand Yoff mbooloo ak ki nga xam ne moom moo di Elton bu parcelle mbooloo mu mel ni que Ndiaga Sarr arbitre ñaari xale yi ñu ci biir géew bi waaw maa ngi lay ziar Mass di nuyu mbokki internet yi sbt media point com ñu leen di ziar ñaari xale yi ñu ngi ci digg géew bi kii dafa teg garde fausse garde kii teg garde normal ku nekk añ nga sa garde moroom ñi ngi damantey baaraam ñoom ñaar ñi ngi damantey baaraam maas daw nañ jàppante ku nekk mi ngi ndengeñ moroomam ku nekk mi ngi ndengeñ moroomam laay la xëy la laa ñoom ñaar dañoo teel a jàppante de ñoom tex boo xoolee seen poids yi sorantewul dañoo neexoo dañoo neexoo ñoo ngi jàppante ñu ngi damantey baaraam ñu ngi ah dóor na. sol ngemb lu weex li mooy kan. dóor na ko. ah combat bi moo dox si diggante Sergent ak ki moom moo di Elton ndeysaan ñaari mbër yaay ci biir géew bi ñaari mbër yaay borom lu weex li mooy Sergent ndeysaan kookoo ngemboo Grand Yoff moo ngemboo Grand Yoff mbooloo. waaye ki ma dajal mooy Elton bi nga xam moom moo nekk fële nga xam moom moo di parcelle mbooloo ndeysaan ñaari xale yaa ci biir géew bi ma leen di wax na yéen ñi nga xam ne yéen a safoo sbt media point com kon leen ngeen abonné ngeen ba seen tous cloche notification bu ko defee ngeen mën a am vidéo yi waaye ma leen di wax it ki nga xam ne moom moo di e Star présentateur bu mag bi léegi ñëw ci site bu mag bi muy sbt media point com fa seene ànd yéen ci wàllu émission ay lamb ndeysaan fa seene tàmbali émission bu mag boobu noonu ñuy wax yaatal lamb Ndiaga Sarr ñu ngi lay dalal ngi lay dalal sbtmedia.com. waaw Mass loolu du mën a ñàkk samay xarit ak samay soppe ah ma ngi mboot ma ngi mboot Elton mi ngi koy mboot ma ngi koy mboot ah Serza ak Elton Elton da ko jéem a mboot waaye Serza moo nekkoon ci ginnaawam kan moo daan Elton daan na Serza Elton daan na Serza dafa mel ni Serza bopp bi dafa laal suuf wala laa ilaaha illallah wa waaye Mass Serza bañ na mi ngi ci digg géew bi. Sergent bañ na mi ngi ci digg géew défensal eh, eh, nangu te génn géew bi wax Elton da na moom ànd ak entraîneur am ñëw ci Sergent di ko encouragé est-ce ko nangu mi ngi koy encouragé waaw gis nga loolu dëgg la Alaaji Malick a ngi ne le ndeysaan Alaaji Malick arbitre dëgg Alaaji Malick ndeysaan Alaaji Malick lamb ngi nii lii mooy lii mooy rafetal lamb waaw la xale yi xam ne maas lii sport la fair moom yaakaar naa ne bu jeexee rek jeex na ndax ñoom ñooy mayante xaalis fair play alaaji alaaji jaga fair play boo xoolee ministre yi dañuy xëy dem bureau ndeysaan bëri bu ñu xëyee dem entraînement ndeysaan kon yaakaar naa ne suñu sport bi kenn war koo ñàkk ndeysaan waaye loolu yaakaar naa ne fan si club bi nañ ci bàyyi xel arbitre nee na arbitre bi nee na bobbee bobbee laal suuf moo tax moo tax mu jox victoire ki nga xam si moom moo di Elton ndeysaan. waaw dëgg la sergent bopp bi laal na suuf. laal ma ngi laal na suuf damaa xamul nag ndax sergent dënn bi wala biir bi gisuma mu laal suuf ndax arbitre moom moo ñu gën a jege image yi waaye yaakaar naa. di la bu wér. yaa ngi ci sbt media point com. ah oui la fa noonu la. yaakaar nay bëre. maa kii Talfat. Talfat ngay bëreel. waaw waaw xale boobu ndaanaan la est-ce xam nga ko. non xaw ma si dara nag xaw ma ko doon door a gisante quoi. yéen a ngi a gisante. waaw waaye pare nga yàgg say mbok yàgg na ainsi moom bëre taan ñibbi rek la ñu xaar fu mu ne nii. kon instant yii tiitoo defoo dara. aw ma lu ma ci aw ma lu xale bu ndaw laa de maa nekk si yoon. dama lan ngay wax say supporter sama supporter aw seen fay ñoo ngi nii. ñoo nekk nii. ana mafia bi. ndeysaan. gis ngeen ko ndeysaan xale bi ndaanaan la gis ngeen li mobilisé. dina caméraman yi maa ngi ci ànd ak maas. mbokki SBT Media point com. Ndiaga Sarr moo nekk ci waxukaay bi. gis ngeen supporter ami yaakaar naa ni bu dee mobiliser xale bi def na ko laay la xay la la journée sëñ du Niang mu ñaa production dofa ngi noonu mi ngi wax ak sama nijaay dof 40 ans borom tëngeej waaye lan lay wax subi dégg nga waaw bi la ñuy ay trait bi da nga dégg nga boo demee subi ko dégg nga parce que waaw uniforme la quoi ah, ok waaw dof 40 ans le grand champion la ziar yaa ngi sbt media point com. waaye tey xam nga sa adversaire. Euh, xaw ma ko miinu ma ko mais maa ngi dégg turam rek. maa ngi dégg turam. waaw mais dégg naa toj nga Bapadi. tuuti rek. bii ma ñaan sa ñaata combat. bii mooy sama premier combat arène. moom mooy sa premier combat arène. waaw est-ce que xam nga ni Bapadi ak arène dafa am différence. xam naa ko bu baax. mais lan ngay waajal sa adversaire. comme ni may waajal yeneen combat yi rek. sa adversaire nu mu tudd bi rek Pape Maron. Pape Maron waaw. mais est-ce xam nga di waa Tëngéej yëpp ñi ngi seetaan SBT Média tey lan nga leen di wax tey te gis nañ mobilisation bi nga xamante ni def nga ko tey lan nga leen di wax te li nga xamante ni tey mooy ci violence si nga xamante ni jugee nañ ci. waaw xam naa di leen saaku ñaan rek waa Tëngéej saaku euh, surtout sama mbokk séeréer yi li ko dalee Fambine gaa yëpp daal ba Foundiougne ba. li ko dalee gandun ba njindayam yëpp gars yi maa leen ñëpp ku si nekk maa ngi saako ñaan si ñoom comprendre nga waaw tamit di rafetlu tamit euh, li nga xam ne mooy làmb ji waa Tëngéej tamit ñëpp jàpp nañ si daal may ñaan yàlla yàlla may ñu ndam sa dëkk si kawam ñu ngi daal. gis moo wax loolu kii la. kii sama entraîneur la. sa bi sama garaa la ndaanaan la mais dafa mel ni moom xelam dalul si yow. ah xelam dal na si man ndax tamit moom sampion la boo xamante ne xam nga moom làmb moom freenu ñaam bi la kenn xamul fu muy demee waaye man wóolu naa ko ku ne kii champion la boo xam ne dafa ma lay Euh, combat bi du écrit ba sax la ko préparé ndax mu woon si àll bi mu woon si àll bi combat bi da sax mu jël ko ni 4 si distance su 4 jours si la jël combat bi. xam ngeen adversaire bi mu bëreel. xam nañ ko moom tey mbërëm mbapat la ñoom ñaar xamante ne tey dajee si àll bi. yaakaar naa borom sifflet ba ne runkum daje dana neex. dana yaakaar naa ne ba suñu lay doon ci géew maas waaye gis nga ko maas ba nga topp ma na champion buy ñëw nii maa ngi kii yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté lamb champion maa lay ziar. yaa lay ziar Baye xam nga sa adversaire. ndax xam naa. sa waaw ci lamb. ci lamb yi lan nga ko nar a def. non di ñaan yàlla rek mu may ma ndam. damay ñaan yàlla rek mu may ma ndam ndam bu seddu guy nag. waaw mbaa nga jógee. ah fan nga ngemboo. Kër Mbay Fall. Kër Mbay Fall. laa jógee. yow la ñuy woowee Kër Mbay faal borom Kër Mbay faal borom Mbaaw borom Kër ma Massar. waaw ah, comme Kordu yaakaar naa ni xale bii ndaanaan la ci wàllu làmb tey làmb am na lu ñu reconnaître ci yow mooy da ngay bëre ba pare boole ko sa métier loolu neex na amateur yi dëgg la waay papa. ci tali bi. waaw comme comme pour champion nga. dëgg la xam nga ni xale bi ngay bëreel ndaanaan la est-ce que tey di nga ñëw rek arbitre bi nga mën a jeexal ko non lamb la ñu wax amul lu ñuy yàkkamti lamb nga koy pare ay weer bés bu ne am lu mu laaj ngay ñëw ci bés yooyu ba mu des benn bés yaakaar ne amatuñ lu ñuy yàkkamti waaw dañuy dal ànd di ko lijjante ba yàlla may ñu ndam ci kàttanu yàlla waaw. léegi comme comme yow euh, ban message ngay lancé ci violence bi nga xamante ni moo jotoon weesu ci làmb ji te bëggatuñ mu am te ku ne xam na ni tey da ngaa bëri mbooloo ak supporters bu ñu bëree ba pare ñu ñibbi ci jàmm. dëgg la loolu kenn rafetlu ko. arène nationale la ñu jox ñu moom ko ñun sénégalais yi. ñu duppee ko vert jaune rouge ñu def ci xaalis bu bëri président de la république def ko ci pour ndaw ñi pour jeunesse yi pour emploi des jeunes ndax emploi la kon dafa war a taaru mais warul xajam mais xëy na erreur la woon mais yaakaar naa ne dootul am mais man samay supporter zéro violence waaw Sëñ Fallou mbokk yi ki wax looy mooy kii toog ak Pafal kii toog jàpp na Pafal kii toog ak Pafal moo ngembolu vert yi mbokk kii toog moom ma ngebo ngebul xonk li hee daan na kii ñoom ñaar dañoo sifle rek doorante wuñ maas ñu jàppante bërëb bi daal di jeex Pape moo mujj daan laa ilaaha illallah xale bii bërëb bi gasson lamb lii la mérito lii la am gis ngeen sponsor yi lañ gën a ñëw ci làmb ndax yaakaar naa ni moom lañ am fii suñu réew sant waa yëmbal waa mbaam loolu may jàppale bu baax a baax ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay. bilaahi. mais bi nii tey sa waa ko ñëpp génn tey lan moo ko waral. barki sëñ Fallou Mbacke gars yi ñoo baax rek. bilaahi kon xale bu ndaw naa ñu topp ma topp sama ginnaaw di ma jàppale. barki sëñ Fallou Mbacke waaw lamb ñii rek la mënoon demee. waaw mais tey ban appel ngay lancé pour say supporters li nga xamante ni moo weesu woon bii paase mu bañ a amati. saa yu ne ah loolu moom lamb lamb violence moom baaxu ci lamb lamb lu koy yàq moom bëri nañ ko rek daw. ba fa dëgg yàlla li fi amoon moom bee baax naa suur nga laamu ni kenn mënul suur na policier yi mooy loolu mais yaa yàlla defal jàmm rek mooy loolu. lan nga gisee SBT Média point com. ah ñu doxal làmb daal loo ci mën di dégg waaw ah, di sant sama gars yëpp nag gars yi jàpp nañ ci bu baax ñu Ousmane Diop dafa chef de garde gars yëpp jàpp nañ ci billaahi. la dëgg la ma fi. waaye laa xay la laa xale bi dafa mobilisé Pape Fall dafa mobilisé xale bi ndaanaan la. wërsëg mi ngi taxaw di rek ndam dafa neex gis ngeen Pape Fall li mobilisé bébé Pape Fall ndaanaan la mobilisé dafa baax ci bër laay la ñi ngi sant bu baax yaa ngi ci jàmm waaw ñi ngi sant bu mais lu waral teewaay bi tey waaw teewaay bi dama fay am poulain buy bëre moom mooy Boy Bordeaux Boy Bordeaux Boy Bordeaux waaw mais yow loo ci loo nekk promoteur yi lu wax waaw yaakaar naa bërki démb rek solay suñu làmb ñu ngi ciy wax waaw instant yi dañoo pare pour jëflante ak suñu morom amoon nañ benn blessure bu xaw a yàgg tuuti mais suñu borom dimbali nañu liggéey nañ entraîné nañ ànd nañ suñuy mbokk pare pour wajaat si arène nationale parce que fii ñun ñoo ko moom te dañ ci am wàll liñ ci am dañ ko war a jël barki alxuraan. kan nga mujjee bëre. waaw maa ngi mujjee bëre Cheikh Ndoye bu Caaray moom laa mujjee bëreel. moom mujjee ci combat boobu. waaw combat boobu dama ci amoon défaite ci laa amoon problème. yàqul dara sa yoon. yoon. balaa boobu ci ndam yu bari lañ toogoon kon xam nga ñu ngi sant yàlla bu baax benn defet boobu lañ am ci làmb waaw léegi nag loolu daf ñoo jàngalu bëree bëri waaw bëgg nañ nag xam nga tey jii nii ñu ñëwaat fii nii jëflante ak suñu morom parce que li ne suñu ginnaaw dafa bari waaw li ne suñu ginnaaw dafa bëri waaw mbër yi nga xamante ne tey jii mooy doon bi moo war a mën a ñàkk waaw nañ jëflante bu baax a baax ak suñu morom nañu gaay jël waaw bëgg nañ tamit xam nga ku mel ne yow ngeen jàpp si bu baax ndax xale bi ndaanaan la ndax ci ay dynamique de victoire yi doy waar la nekkoon benn defet bu yàqul dara ci sa yoon mais nan nga gisee liggéeyu FBT Média tey ci wàllu làmb ji. waaw mais dara duñ def lu rafetlu ko ñu ngi koy lu bu baax a baax parce que seen liggéey am na solo gars yi franchement parler xam nga dañ leen di suivre bu baax a baax a baax a baax waaw waxuma la sax comme nii nii mais dañuy dugg si YouTube bi xam ga di leen waaw di leen teewlu bu baax a baax kon. waxal waaw moo yoon na waaw ñu ngi wax gaa yëpp nañ abonné waaw fan si Demba déranger yëpp waaw nañ abonné DTV waaw yaa ma gën a xam Demba noonu Mass xale bii ndaanaan lan na leen ko bàyyi xel Mass ba tey am na ñaari combat yoo xamante ne mi ngi ci digg géew bi am na ñaari combat yoo xam ne mi ngi ci digg géew bi am na champion bu may gis ni samp yow maa lay gis sànq ba léegi yaa ngi yëngal dafa mel da nga am confiance. non xam nga rek sant yàlla rek. sant yàlla rek yàlla na yàlla mooy ndam sedd guy. yàlla na yàlla mooy ndam sedd guy yàlla na yàlla suturaal mooy ndam. waaw lu sedd guy rek dañuy wax am amin waaye ndam moom sañu ñu see wax amin ndax tey ku ne gis na ni làmb da ngeen koo bëgg dañoo bëgg ngeen di ñaax seen i supporters bu ñu ñëwee ci stade bi ñu wàññi noo violence bi. waaw mais violence bi xam rek waaw. dool tam xam nga rafetlu wuñ ko quoi waaw mais supporter tam xam nga ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi violence bi xam la quoi suñu culture la waaw dañuy ñaan yàlla mu avance ndax ñun làmb rek la am amul leneen li fi amoon kenn rafetlu wuñ ko bëggul moom làmb waaw mais ñaan lañu yàlla may ndam sedd guy mais lan ngay dig say supporter ci kanam tuuti sama supporter waaw maa ngi leen ndam rek ndam laa leen dig mooy bàyyi suñu kër ndam laa leen dig te maa ngi ñaan suñu ndam sedd guy waaw yaakaar naa ne yàggatul dina laale ci digg géew bi waa champion mi ngi SFA wu de ànd ak Koso maa lay ziar yaay kan yaay kan. waaw waaw maa moo ngi nii Kaw Cissé da ngaa yokk maas moo tax xàmmee ma la Kaw Cissé ngi borom grand combat mais yaay looy looy looy waajal sa adversaire. non ndam rek moom la dëggal boppam mooy incha allah si kàttanu yàlla mooy combat bu bu dëgg bu dëggalee moom combat bu yàgg woon alxuraan. est ce xam nga ko. non xam naa ko ba kii mag la Paala. Ah. Paala. ndaanaan la de. prip dib la billaahi. prip dib. mais est ce que xam nga ni ndaanaan la parce moom li muy daanu bariwul. non mooy ma xool tey dina daanu ba mooy ba xala ko incha allah. Ah. tey day daanu ba xala ko. combat bi day gaaw wala day yéex. non ça dépasse moom na taxaw rek incha allah. bëre lay jeexee wala dóor mu daanu. lépp mën na jeexee si lépp. yaay songu a dangay xaar. maay songu. a yaay songu amul taxaw. bu arbitre sifflé yaay songu. waa koso moo ngi nii moom daa mi ngi ah, dafa mel ni maas koso mi ngi nii taxaw xam nga mbëri léegi daanaka ay course ndax ñooy nekk ci diggéew bi def étirement yi mais lan ngay waajalee lan ngay waajalee. waaw combat yi waaj nañ ko comme ni ñuy waajoo yeneen combat yi entraîné ba nice yaa ngi dégg waa ji paala day ñëw ñu daan ko jël bu gaaw ba muy bëree booy bi bëreewul xalaatul bëre bu xeexee day daanu bu bëree day daanu lu mu munti def day daanu waaw. mais tey ndaanaan gi nga doon ci làmb ñu gis xale bu ndaw boo xam ne tuddee na la boppam loolu nan la lay def ci làmb waaw lu rëy la may def ndax ku deful dara doo am dara ndax ku dem ba tuddee la boppam moom desetu la dara moo tax dañ koy ñaanal xolal mu téye roi bi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam bu seddu guy waaw ñu ngi bëggee ñëpp nag waa Dalifor yëpp taxaw nañ ñu waa Maris waa Yarax yëpp ñu leen di bëggee. waaw looy xaar yow looy looy xaar. man maa ngi ñëw New Look is back. boo ma xoolee rek xam ne pare naa je suis pare. dëgg la waaw. Mass Kaw Cissé numéro 1 la Kaw Cissé numéro 2. nee na is back loolu mooy retour ci angale Mass. laay laa xay lan laa am. kii am na combat bu nekk ci digg géew bi. mooy say numéro 2 fekke ma si boole ak ki nga xam moom moo di canal écrit écrit xéewal gi. booy say numéro 2 ak canal Mass ci digg géew bi. booy Seye numéro 2 mi ngi ci digg géew bi Canal mi ngi wax ak ki nga xam ne mooy coach sam muy sol prothèse danga bi mbokk yi. at bi numéro 2 moo jàkkaarloog ñun. waaw Boy Seye numéro moo jàkkaarloog ñun maas. mu mel ne que combat bu nar a neex te gaaw lay doon ni ma gisee ndax boo xoolee ñoom ñaar xool nañoo am différence de poids nag. xaw nañoo am différence de pois maas mais lii mooy combat. da ngay boole ñaari xale yoo xamante ne ay naataangoo lañ buñ bëree rek day daal di neex maas. laay laay la laa mi ngi noonu sbtmedia.com ñu ànd ak ki nga xam se ne nii moom moo di Ndiaga Star ndeysaan war a ñëw ci seen émission lamb yu mag yooyu mu yaatal lamb ndeysaan Ndiaga Star a ngi noonu. maas loolu du mën a ñàkk ñu yaatal lamb fi nga xamante ne mooy sbtmedia.com nga xam ne àdduna bi yëpp moom la ñuy wër waaye ant arbitre bi mi ngi wax ak ñoom kanaal moom moo ne woon ginaa mbokk yi Boy Seye numéro 2 moo féete kanam ñoom ñaar nag danoo jegante dafa mel ni danoo yàqamti de waaye jarul yàqamti arbitre léegi mu sifflé bu boobaa ku nekk di nga wane sa bopp arbitre sifflé na Boy Seye numéro 2 ak Canal. Canal kàbbar na ko maas dóor ñaari tànk yi ëf ko Boy Seye numéro 2 ak Canal moo la woon ginnaaw. waaye Ndiaga Sarr xale yi seen waaye jekk na. xale yi liggéey nañ. xale yi seen taxawaay jekk na ci làmb. ñoo liggéey maas moo tax taxawaay bi jekk dóorante nañ hee Boy Seye dóor na arrêt droite Boy Seye dóor na arrêt droite na noo laale de ndax fàqat la ndax wéy la ndax dóor mu daanu loolu si kanam lay leer. mais du yàgg maas ñi ngi dóorante eh dóor na ko mu daanu Canal dóor na Boy Seye numéro 2 mu daanu. na Boy Seye numéro 2. Canal dóor na Boy Seye numéro 2. Canal dóor na Boy Seye numéro 2. kanaar Canal Canal Canal noo ko daane. damay sant yàlla baax maay sant yàlla. maay sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin. mais dañoo gis làmb ji dafa gaaw. alhamdulilah non day gaaw parce que dañ maa yeb yónni ma yàqamti ma. mais dañoo gis ci xeex bi moom moo la dominé woon mais da nga ko mujj dóor mu daanu. li ma liggéey xajul si kii. man soxlawu ma si kii dañ ma jox si ndaanaani. ndaanaani ñan la kan mooy ndaanaani. ndaanaani si gars yi rek ndaanaani ñan la. du ñaa di ko encouragé di ko ñaanal jàmm ba jàppee ba léegi di leen di delloo ziar bu baax a baax a baax. waaye yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. mais tey naka naka nga gisee làmb ji. ah. naka nga gisee làmb ji. xanaa mbégte rek. mbégte rek parce que ñu ngi toujours rek ñun ci li ñu nekk mooy di promouvoir les jeunes. donc gis nga tey journée bi xale yi bëre nañu bëre yu am solo te gis nga vraiment làmb ji ni mu mel géew bi set wecc organisation bi lépp normal ñu ciy féliciter CNG de lutte. bu ñu continuer nii rek daal yàlla mën na def làmb dina gën a demaat ca kanam. dina gën a dem ci kanam bii mooy sañaata ñaata bii mooy sixième journée. dimanche la ñuy jëm vingt septième journée. dimanche nga jëm septième journée fan lay doon. Bargny. ah Bargny lay doon. kan ak kan moo fay bëri. Euh, Pape Robo ñoom Pape Diagne nag ñoo ñoo xam programme bi ñoom ñoom jaañ Diagne ak Ndoye ñoo xam programme bi mais xam naa ne Pape Robo moo koy bëre. mais ñu gis tey sëñ Modou Niang bi mu jàppee ba léegi ci làmb kenn musu koo gis mu jooy kenn musu ko gis mu def dara tey ngay jël xale yi nga xamante ne ay espoiru làmb lañ sëñ Modou Niang da leen tëgg sax te du xool seeni mbooloo mais tey li nga xamante ni tey noonu nga mel nekk promoteur yan jikko la promoteur war a mel pour war a mel ni yow. waa mooy góor góorlu rek tegu ci yoon rek tegu ci yoonu jub góor góorgóorlu liggéey loolu lu mu mën a doon ci àdduna rek loolu moo ci baax. góorgóorlu tegu ci yoonu jub te moytu tooñ loolu boo ko defee rek li nga bëgg lépp yàlla mën na la ci suturaal. mais est-ce que xam nga ni waa SBTmedia.com dañuy sawar ci ñëw journée sëñ Modou Niang est-ce que yaa ngi ñuy bàyyi xel père. maa ngi leen di bàyyi xel bu baax maa ngi leen di gis bu baax a baax a baax yéen a liggéey liggéey bu am solo gën leen a góorgóorlu rek bu ko defee li ngeen bëgg lépp incha allah ci làmb di ngeen ko am incha allah. waa jërëjëf papa sëñ Modou Niang maa ngi waaye kon dañuy xaar tombek Thierno Ka nuyoo waaw papa ñu ngi lay ziar Thierno Ka. ñu ngi leen di ziar ñu ngi fi teewal waa CNG. ah waaw damay seetaan amateur nga. waaw amateur laa mosul woon. li amagum ci làmb ji sa xel dal na. ah waaye non mosuma am problème. mosuma am problème nit ñi dañuy jaawale ko bëre ak combat grand grande bi ñu déggul gën a affiché dañ naan làmb bi doxul tey am na làmb suba am na làmb samedi am na làmb dimanche am na làmb yëpp am na làmb xëy na kay ñi ñu wooyee euh, VIP yi ñoom ñoo amagul combat xëy na war nañuy waxtaan ak promoteur yi ba xam lu ñuy def parce que boo toogee euh, atum lëmm bëriwoo perte nga at ah mais nag kooku ñoom ñoo xam ni ñuy ni ñuy liggéeyee ñoom ñoo xam ni ñuy liggéey mais nag aw ma ci aw ma ci xel ñaar mais depuis dimanche règlement yi dafa soppeeku wala règlement yi fa mu nekkoon la nekk ba léegi. fa mu nekkoon la ne dara changé wu ci li nga xam ne mooy changé kay mooy léegi ni ñuy placé cumbukaay yi moom moo changé ni ngeen ko gisee tey léegi euh, euh, mbër yi buy dugg gis benn nit lay àndal pour ay jaxasoo donc yàgg nañu limité nit ñi ànd ak mbër mi. waaye nag mbir ndi ci ñoo xaw a indiscipliné waaye li amoon dimanche boo yàggee seraan lamb am na au moins fukki yoo xam ne gis ñu ko ci lamb donc euh, am na dimanche dañ koy ñaawlu te di yaakaar ne xëy na ñu ci jaar voilà. mën nañ xam ñaari mbër yi fan lañ mujj ak CNG. ah non ko kay wax nañ ko fu nekk ñàkk euh, euh, jëriñu comme affaire bi ci camp am jóge moom ak équipe bi yëpp dañ leen suspendé Euh, Alioune Seye numéro 2 dañ ko suspendre 6 parce que bi ko wàññi sottee saafara ay nit ñi fa xam ne nga xam ne loolu mooy seen liggéey ñu jël ko régleel boppam loolu la coow mais bu fekkoon te sotti dara rek mu ne gis ngeen kon coow du am waaw donc noonu la demee ke sotti saafara si nag euh, moom dootul dugg ci géew di Dakar du feneen voilà. noonu daal nga xamante ne ni doon nga kii dañ ko aj un kii ñu aj ko 6 noonu la lañ def ak ñoom mais tey seen wàllu reliquat dafa am lu luñ ci dagg wala dagguñu si dara. Euh, xam naa ne euh, ñax jariñ moom téye nañu reliquat waaw euh, xaw ma nag ndax kii jox nañ ko reliquat wala waa manqué na le directeur administratif dafa tukki woon ñëw na moom moo lijjanti loolu mais li wóor tamit daal mooy réunion bureau bi ñu am altine dañ noonu dañuy retenir dañuy confisquer reliquat ñax jariñ liit naa ci journal bi am ku doon wax benn waaye bu dëkk Kaolack mu ne commission règlement bi ni gaaw du commission règlement bureau bi parce que c'est un cas de flagrant délit kooku ñun ñëpp a gisandoo kooku amul ay commission du commission règlement bureau bi mooy jël boobu def dogal voilà. waaw jërëjëf papa kontaan nañ. ok merci beaucoup. waaw jërëjëf Mass. maa ngi lay nuyu. Mbaye Yékini maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu wér a wér. an waaw sama teewaay ku ne xam na ni sama référence mooy sëñ Modou Niang muy sama papa euh, moo waral tey fu muy tëgg fu ne ma teg fa sama tànk si kàttanu yàlla suñu borom incha allah. mais dafa am journée yoo dese wala. waaw war na am journée yu ma dese mais xam nga tey booy boo jugee si loo xamante ni macha allah ñëpp apprécié nañu waroo toog rawatina nga soxla grand yu euh, combat yu mag incha allah si laa nekk nii di dox mais dafa ñoragul ko yàlla sotti si jàmm ak. yàlla na ko yàlla sottil. ndax bi nga ñëwee ci làmb yàggul ci wàllu promoteur waaye yàqoo ci dara ñu ngi lay encouragé di la ñaanal jàmm. sant yàlla bu baax a baax tey ñaan yàlla suñu borom yal na yàlla suñu borom mottalil ma lépp ak luy samay mbëbët si kàttanu yàlla suñu borom incha allah incha allah. jërëjëf Mbaye Yékini jeer di jëli combat yi ñu ngi si diggu géew bi Fils de Sam Sam moom ñoom ñaar ñëpp ci diggu géew bi arbitre bi di leen xool. Fils ginnaaw. moom moo ñu wan ginnaaw Fils de Double Less ñaari fils yi maas dañoo xaw a daje. Fils de Sam Sam ak Fils de Double Less Fils de Sam Sam moo wane ginnaaw fis de Double Less moo ñu wan kanam mbokk yi waaw Fils de Sam Sam am na lu muy laaj. Fils de Sam Sam am na lu muy déclaré dafa mel ni maas ci làpp dàq gi laaj dóor daanu gi lay laaj loolu lay nduru laay laay la cey ñaari xale yi combat bi fi jaar léegi neex na gaaw na dóor mu daanu parce que am benn affaire waaw xale yi léegi ku sa gàllaaj doo bëri de laay maa ko wax dafa mel ni léegi sëriñ yi ñooy laay laay la laa kii de kii géej lañ ko awee daru gay na géej ah lañ ko awee daru gay géej ah géej lañ ko woowee ma ay borom xam-xam lañ la ma wax ci gàllaaj dama koy gëm maa la ko wax daru géej na géej ci géej laay laay la laa ko jàpp ah arbitre de Samsam ak fils de lees da ngay léebu ñëpp ñi ngi léeboo de Samsam moo nu wan ginnaaw Fils de Less moo gën a ñuul moo na wan kanam ñaari fils yi daal ñoo daje xaw ku ci nekk peer nag ñi ngi leew lewtoo kii dafa teg pied droit. moo takk morso bu xonk bi ci bopp bi. waa moo takk morso bu xonk bi maas. ndeysaan ñoom ñaar ñëpp pied droit lañ teg. làmb ju neex la tey gaaw de boobu motul. ñaari pied droit maas est que ñi dañoo pare pour xeex de. ba danañ xeex danañ laale danañ jàppante ndax wéy la ndax noojo la ndax xatar bi la loolu ci kanam lay leer. ndeysaan maas. laay laay la laay. maas bu maas bu ma ragalu woon ne jinne nga waaye déggoo sànq dama naan la ndax door mu daanu ndax kii far mu door ko mu daanu. dóor ko mu daanu. làmb yooyu ci am wéy la wala xaatar bi. dëgg la fils de Sam Sam ak fils de Lees. waaye ma leen di fàttali man mën ngeen a ànd ak SBT Media point com ngeen abonné ngeen bës seen tous cloche ma leen di wax ne SBT mi ngi ñëw ak yeneen feemu làmb ndax ku nekk xam ne Ndiaga Star animateur bu mag boobu. ñëw na fi nga xam ne moom moo war a def li nga xam ne moom moo di yaatal lamb yaatal lamb ba tey mbokk yi ñi ngi arène nationale fils de Samsam sànni na croisé bu dal léegi waaye fils de les lees de mi ngi mi ngi tey door na génnaat door na léegi génnaat ñaari xale yaa ngi lewaatoo na ngay baaram ndax daay lay la laa lan mooy am lan mooy am lan mooy am mbot la wala wër ndomba mbot la wala wër ndomba mbot wala wër ndomba mbot wala wër ndomba ña ngay xeex laa la laa ñi ngi xeex maas ñaari xale yi dañoo ñemente fils de Samsam ma ngi koy jéem a añ ma ngi koy jéem a añ di ko tegal 16 mu bañ fis na Samsam da koy añ di ko tegal 16 mu bañ fils de lees mii dara la de maas eh dañoo liggéey ragal naa combat bi ragal naa ñu tegal 16 wala mbot wala wéy la de ci mën a ñàkk wala faaxat ci mën a ñàkk ay la laa cey laam wala wër boo xoolee ñoom ñaar ay diggu doom lañ gàtt ñu njooluñu gis na sam-sam fi mu jàpp fi mu jàpp loxom loxom ndeyjooram bi dafa mel baax na de baax na ma nga tegal sees tegal na ko sees maas waxoon nga ma ko waxoon naa la ko maas waxoon nga ma ko fa mu jàpp la da koo tegal sees fa mu jàpp la da koo tegal sees ba mu jàpp ca gannaaw regal naa la ay lay la la jamatoo ci lamb bàyyi xel mbokki sbt média point com ay lay la de Sam Sam ak fils de Less mi ngi noonu fils de Sam Sam da tegal sees te kon na ko essayé nag mu. maas xale bi indi na mbooloo xale bi indi na mbooloo Fils de Sam Sam moo indi lii. laa ilaaha illallaah. Fils de Sam Sam moo indi lii. laa ilaaha illallaah. maas man damay bëgg waaye mbër bu daane ay supporter am di toog. laa ilaaha illallaah loolu dafay taaral lamb maas. waaye dama ñi ay fans club la ñu duñu ay amateur amateur mooy seetaan lamb. waaw loolu dëgg la mbërëm rek lay lijjanti. dëgg maas. maa la wax loolu. Eh, maas est que loolu jotul promoteur yi def ci taxaw seet. déedéet amateur moo amatul ci lamb. fans club yi ñëw. loolu moo tax mu demee nii. maa la ko wax. te naa ko benn mbër mu ne dañoo bëgg di bëre grand combat tax bu ñu bëree rek dañuy ñibbi. laa ilaaha illallaah boo xoolee xale bi li mu waaye waay waay xoolal ma lii waay. waaw eh, waaw. bi liggéey na de ah. maa lay ziar. yaa ngi SBT Media point com mais jël bi noo ko daane. sant yàlla bu baax di sant bu baax a baax di si yonent bi di sant sama ko lépp moom la barki seet naa xam combat daj naa lu métti mais yàlla ak moom la lu ma teg ma tegoo ko ngir bëgg ndam lii nag lii ma bëre yàlla ak moom la moo na ma bëreel nii xeexu sant ñu la xeex dawal jaabante moo xam nañ soo ko jaabante nga daan. maa ngi sand yàlla bu baax di sant waa Casamance di sand waa Casamance bu baax a baax di sant sama mbokku njaago yëpp di sant sama yaay bu ma sugu jur di sant sama kës maa ngi sant Cheikh di sant di sant kiin di sant Père Jali di sand Farba di sant Moussa di sant Karba di sant sama mag Basir waa Pimbi waa Mokol Jaabira waa Teg Dóor ñoo ñëpp maa ngi leen sant waa Samsam bi yëpp ba dañoo gis tegal 16 bi nga njëkk ko def mu bañ nga continuer waat ko adversaire bi moo yomb wala non yombul heure boobu noonu loxo bi jàppaloon baax moo tax ma gën a jeex-jeexal si ginnaaw ba am ko ma mel lu koy yóbbu ma indi ko si ginnaaw maa ngi sant waa Casamance bu baax a baax a baax a baax maa ngi koy sant maa ñaari fiis daje woon la léegi kan moo ci fiis verre bi maa ngi verre ndax maa ko daan mais yéen maa ngi leen sant leen gërëm seen liggéey bi yàlla na jëm kanam ndeysaan ñaari mbër yaa ngi ci biir géew bi ñaari mbër yaa ngi ci biir géew bi Boy Bordeaux ak ki nga xam ne mooy Boy Ndiosson ndeysaan waa Mass yaakaar naa ñu ngi ci cinquième combat de la soirée Boy Bordeaux moo nekk écurie Fodé Doussouba waaye booy Ndiosson moo nekk ki xam ne mooy écurie fekkee ma si boole laay leen laa ñu ni lamb ji ñu si boole waa fekkee ñu si boole Mass ñu ngi ci cinquième combat de la soirée ñaari xale yi adversaire de taille la kenn du sëñ Modou Niang mu Niang production. mais est-ce que xam nga ne Ndiaga Star sëñ Modou Niang combat yi neex yëpp moo leen di tëgg. moo leen di tëgg ndax combat espoir yi ci la ci la lamb di feeñee. dëgg la ñi nga xam ne tey ñoo fi ay roi de saret ñi si ëpp sëñ Modou Niang moo leen génne. dëgg la waaye sëñ Modou Niang lamb amel na ko njukkal waay. lamb amel na ko njukkal maas. lamb amel na ko njukkal wax leen ko waay. sëñ Modou Niang nekk sponsor yi jàppale. sëñ Modou mooy lamb. sëñ Modou Niang ndaanaan la. la ilaha illallah musul yuuxu musul onk wutul ku ko aw laa ilaaha illallaah ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul septième journée mi ngi jëm Bargny lool la wax sànq laa ilaaha illallaah cey dara du leen ci raw SBT l'alternance loolu dëgg la maas yaa ko xam laa eh waaye kenn du SBT média point kom day lu la réer ci làmb fii nga koy amee mu daal di leer arbitre baa wax ñaari mbër yi nee leen course sifflet leen boole course sifflet moo leen tàggale nee na ndax pare ngeen xool nay siisam nee na ndax pare ngeen nee na ko ndax pare nga booy Bordeaux mu ne waaw mu ne boo ñëwee pare mu ne faxasal suuf si pare nga mu ne waaw arbitre sifflé na. arbitre sifflé na maas booy Bordeaux booy Ndiol Song booy Ndiol Song moo xees daw na song booy Bordeaux booy Bordeaux booy Ndiol Song. jàppante nañ booy Bordeaux booy Ndiol Song Song booy Ndiol Song lum nar laay laa xay lalla booy Ndiol Song lum nar. ay laa da ko mbiic mu daal di wàcc ñu ànd raam daal di jóg booy Ndiol Song mi ngi door eh, booy Ndiol Song mi ngi door booy Bordeaux faqat na ko faqat na ko lu muy am. Boy Bordeaux dóor na léegi. laa ilaaha illallaah hee ñaari xale yi teer nañoo bëre demaas. ñaari xale yi xeex nañ bëre nañ. ñaari booy la. laa la illallaah booy booy da ngay boole ñaari mbër yu ñemente. dëgg la Boy Bordeaux Boy Ndiol Song ñaari da ngay boole ñaari mbër yu bëgg a dem te kaw. dëgg la maas. laa ilaaha illallaah. Boy Ndiol Song jàpp na ko ma ngi koy tël mu bañ. Boy Ndiol Song mii naka dara Boy Ndiol mii dara la. laa dafa mel ni Boy Bordeaux dafa xaw a diis. waa dafa diis dafa diis waaye xale baa ngi koy loo de. mi door épercule. booy Bordeaux ngi door ci suuf booy Bordeaux ngi door ci suuf ndeysaan. booy mi ngi door suuf. cey làmb làmb ngi noonu. booy Bordeaux mi ngi door ci suuf mbokk yi. Senghor yaa ngi tekkeeku. mu mel ne ko booy Bordeaux moom booy Ndiosone bëri la andi. booy Ndiosone mi ngi koy jéem songale mu bañ. ay lalla caay. mais est-ce que booy du def ndànk parce que tenté na ko ñetti yoon sottiwu mu mel ni Boy Bordeaux kon entonné ay coups ci suuf yu bëri ndeysaan lan moo nar am ci kanam tuuti dina leer. dina leer maas parce que boo xoolee. ndax xatar bi la. bu doon ndax mbot la. fan lay doon laay leeral ci kanam dina leer. dina leer maas. Boy doo mi ngi door ci suuf ay épercule. ndax teq la cey làmb. maas Boy doo mi ngi door épercule. Boy Ndiol Song dafa jàpp daal di taxaw mu mel ne que mu mel ne que booy Ndiol dafa mel ne dafay bëgg dafay bëgg sonn nag. day bëgg a sonn lim def sànq. et puis fi ko booy Bordeaux fi booy Bordeaux paquet ñaar loxo mi nii wóorul. wóorul na ko jéem a dindi. kay ni mu takkee ñaar loxo yi wóorul ndax. koy plaqué mu bañ. ndax ni mu takkee ñaar loxo yi bu ko plaqué day dem. day dem doom fu mu jafandu. laay laay la laa. booy Bordeaux mii ndaan naan la de. waaye booy Ndiol song. booy Ndiol song booy Bordeaux. jàppante nañ eh mi ngi koy jéem a caxabal mu bañ. mu remplacer ko daw daw da ko remplacer def rotation maas. laay laay la laa xale yi mën nañoo bëre. booy Ndiolson daa mën a bëre de. booy boo mën naa bëre ndax action bi première action bi ko booy Ndiolson def. bu a bëre daal di jeex maas. laay laay la laa. na ko mi ngi koy jéem a mi ngi koy jéem tegal seize mu bañ. Eh, eh. ñaari xale yi bëri nañ. stade baa ngi riir. booy Bordeaux booy Ndiolson. booy Bordeaux moo wan ginnaaw ñi ngi dem ci ginnaaw saaku yi eh. ñaari xale yi jàmbaar lañ booy njol song ak booy Bordeaux ñaari xale yi liñ joxe maas dafa jot bari moo tax xaw na noo sonn. ardo am na ca yoon de ku dem ardo booy njol song mooy dem ardo ndax guy mu jël suuf dafa bari dëgg booy njol song mi ngi dem ardo éperculi percuité bëri. Boy Bordeaux mi ngi naan supporter am ndànk rek. ku yu mel ni mbàccum gerte. ey maas ku ku ma dóoroon. ay lay la laa bay. ay waa yàlla buñ ma ko dóor. bër daal luñ ko fay jar na ko. lay laa. moo tax su ma gisee ku naan gën a tàkku saa ñu fay lay million dafa yomb ma ne xamoo xew. mbër bu amee combat day entraîné bu amul combat day entraîné. dëgg la. làmb moo metti ak ñu yaakaar ci yow. dëgg laa ilaha illallah maa la wax lii bu ministre yi demee bureau yow nga xëy dem entraînement laay ndeysaan booy Bordeaux ña ngay defaraat ngemb la. waaye boo xoolee si benn angle bi ndeysaan ña nga fa am ki nga xam mooy booy ñëw ma ngi ca ardo waaye yaakaar naa du fa yàgg nag du fa yàgg ndax blessure bi ay kii la rek ay cokkaas la. garaawul xaw naa garaaw nag ci moom waaye ñun garaawul suñu waaye garaaw na ci moom. xale bi jàmbaar la ko su bàyyi noonu di ko jox ndox muy naan cey ngi jox ndox muy naan cey làmb Mass Boy Ndiol Song yaakaar naa ni ardo bi arrangé na ko ndax dina noppalu. ndeysaan mi ngay demaat ñi ngay demaat ci biir géew ba cey sëñ Modou Niang la promoteur l'alternance ndaanaan lan dañ ko bàyyi xel ndeysaan grand combat bi mi ngi dox si diggante ki nga xam moom mooy Kaaw Cissé bu Dalifor Kaaw Cissé numéro 2 bu Dalifor ñaari xale yooyu espoiru làmb la Concorde cey làmb maas arbitre sifflé waat na Boy Bordeaux Boy Ndiolsong Boy Bordeaux moo wane ginnaaw. tey làmb ji dana changé waat day changé. non dafay changé parce que yaakaar naa ne bii. amul mu bu du ñam nga sa morom Boy Ndiolsong daw na jël Boy Bordeaux fàqat na ko mu ngi koy jéem a wan ndam ba mu bañ. hey Boy Bordeaux jàppante ne Boy Ndiolsong daan na ko. Boy Ndiolsong ay lay la laa jël na. waxoon naa la ko. laa ilaaha ay waay ay waay ay waay. dafa fi taxaw ak moom rek mu jaaxaan. dafa fi taxaw ak moom rek mu daal di jaaxaan. dafa fi taxaw moom mu jaaxaan. Boy Ndiol Songu ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen fay bu baax. combat bi yàgg na metti na. waaw xam na loolu moo laaj loolu quoi combat bi dama ko jël yàlla dafa am ay blessure yoo sama loxo bi dañ ko ñaw gis nga ma bëraat bi sama baaraam bi dambu mais mënu maa ko def mënu ma dooraam mënu maa ko dara ma jël ma jéngu jël combat bi. mais barke Seydina ma kii moom morom Thiatou Yarakh xam nga ko Thiatou Yarakh boo bëgg fi man rek maa ko daan man rek ko jox wax dëgg mu ñëw barke Seydina ma xamee mais kii maa xamal du ma moromam man maa ko yóbbu septième combat mais kii premier combat la waroon a bëree wóor na yàlla. mais gis nañ si première seed yi. sottiwul lan moo man kii mooy sama coach kii mooy sama baay mooy sama lépp comprends nga kii moo la gën ne andi ma ko dama am ay blessure gis sama loxo yi yow ay blessure la combat bi dafa sama bakkan laa jaay daan ko mais wallaay indi ma ko bëree mais dama indi bëri rek ndeysaan bi nekk si biir géew bi mooy ki nga xam mooy dof 44 écrit songaan Gueye ak ki xam ne moom mooy sàng ne sàng sa sànni ngéem bi nga xam se ne nii ndeysaan mooy jàmbaar bu yaraax ndeysaan bu ñu jógee foofu nag dem si combat spécial bi ndeysaan dox si diggante ki nga xam se ne nii ndeysaan mooy capitaine bu écrit ba da jonn ak ki nga xam ne mooy talfa écrit doo dooraat ndeysaan ñaari mbëri arbitre baa ngi lay wax ak ñoom maas arbitre baa ngi wax ak ñoom dof 44 moom moo ne wan ginnaaw mbokk yi sànni ngéem 44 moo xaw moo xaw a su taxawaay tuuti waaw moo su taxawaay ndeysaan moo ñuul moo ne wan kanam waaye ba tey adversaire de taille la arbitre bi sifflé na arbitre bi sifflé na maas sànni ngeem ak dof 44 sànni ku nekk Idrissa tànk ndeyjoor laay door na ko sànni ngeem door na laay laay la laa door na door mu dal waay del na koo ñeme de ñaar tànk yi njiital la moo dax tax dañuy jegante seen loxo yi day jegante mais dof 44 mi def ba wóor na pied droit bi mu teg sànni ko jox ko adversaire ah man naa njool day man tànk de man naa ma man tànk de bëre katu mbapat la moom ñoom ñaar ñëpp ay mbëri mbapat la xamante nañ laay laay la laa cay ñaari xale yi. dof 44 kay nee na ma dañuy daje ci mbappa di xamante nañ. laay laay la laa ñi ngi lewtoo mbokk yi sànni ngeem ak dof 44. sànni ngeem dagg liwaatoo bi arrière daal di ñëwaat. dof bu suuf daal di siggiwaat ndeysaan seere sengoor seere seere làpp taaka gi. ñaari xale yi jàppante nañ sànni jël na ko. sànni ngeem jël na ko dof 44 taf na ko mba nga koy jéem a na ko yëkkati na ko wuy surux na. laa ilaaha laa surux na sànni ngeem sànni ngeem sànni ngeem lu arbitre wax lu arbitre wax éhé eh, eh. sànni ngeem daan na dof 44 sànni ngeem na dof 44. waaw waaw maa ngi nii de làmb moom a sama gaa yaa ngi nii gisoo supporters yi moom laa la bëggoon a wan seex nii. dëgg la bilaay walaay mais gis nga xale yaa ngi ne ndeysaan namm làmb mais gars yi dañuy jël avance bi rek deloo bilaay walaay tey ji xam nga ni war a naajee mais booy bi dafa mujj dawaat. daa mujj daw bilaay walaay. mais est ce que nekkul yaa doon taamu ay adversaire mu mujj ñu wutal ko keneen. non man taamu ma kenn man sama adversaire bu ñëwee rek baana nañ ay naataangoo ku mën a ku mën a xeex ku mën a bëri laa bëgg nag ku saf sàpp. ku mel ne kan. ku mel ni gone yi gone yi bëri nañ xam nga man moom door moo adversaire ko koo woo koo laaj mu yaakaar ne dañ koy préparé loolu mooy lem bi yaa ma gën a xam. bëree gum nga ren. non bëri naa ñaari combat ñaari combat ñaata loo ci am. ñaari victoire. ah mais loolu yaakaar naa départ bu baax la de. waaw gis nga mais. mais waxal fii mooy euh, sbtmedia.com Serigne Modou Niang mi ngi lay déglu damaa bëgg nga laaj ñi nga bëgg a bëreel du yàgg dara sëñ Modou Niang wutal la combat ndax yow ndaanaan nga. no man xam nga ne xale yaa ngi fi ay ñoon caatu rëbës ah ay ñoom bursin booy xam nga ni booy band yaa ngi noonu ñoom laa bëgg a bëreel xale yaa ngi nii xale yi doon bëre tay sa sama adversaire rek booy bii di bëre spécial bi sama adversaire mais booy dañuy daw. booy ñemewuñ ma. bilaa ñeme nga mbàccum gerte caatu rëbës. déggoo la ma day dóore déggoo man maay xale bi tëx bi bi ni wooyee xale bu tëx gande gu tëx xam nga ko. man lañ may wooyee. sam papa bu may woo dana ma yow da ngaa tëx. ñëwal ma ma ma wax la. loolu mooy problème bi. mais kontaan nañ ci yow. waaw maa la gën a kontaan doom yaay. boo liggéey bi. waaw gis nga di ko rafetlu rek xam nga yow lu rafet rek ngay bëgg. bilaay walaay yow kenn amul sa fay. waa làmba lay nam chaque jour. boo amul woon dan lay dan lay ori wuti bilaay walaay ndax de yow ay esaaru lamb ji yow yow yor bi yaa yëngal affaire yi de waaw ndeysaan kooku samp yow la maas ba bëri rek na ko lamb bàyyi xel Serigne Modou ñaa xale baa ngi ni ndaanaan la bu jógee waa parcelle jóg dama bëgg nga seet si ko ñëw joxal ma ko combat yow sama papa nga sama xarit waaye kenn du jinne caméraman hey maas ndeysaan njaga esaaru ñaari xale yaa ngi ci biir géew bi talfa moo sukk ñaari bët am lu mu takk ci biir am lu mu arbitre baa ngi xool ki nga xam si moom moo di capitaine ndeysaan mu nekk combat bi nga xam si ne nii ndeysaan mooy combat spécial bi muy dox si diggante capitaine bu écrit ba da jonn ak talfa écrit dóor dooraat mu mel ne que ñaari ñaari ñaari mbër yi ñoo xaw a tolloo ñoo xaw a tolloo taxawaay. waa Mass ñoom ñoo tolloo taxawaay boo xoolee capitaine moom moo wane ginnaaw talfa moom moo ne wan kanam ñoom ñaar ñoo tolloo boo xoolee capitaine. moom mooy su tuuti rek waaye euh, mooy ëpp tuuti waaye bariwul yaakaar naa ne bu fekkee pare nañ pour bëre buñ jàppantee làmb ji du yàgg ndeysaan ñu ngi nuyu suñu mbokk séeréer yi xaw ma la wekkat bi wax en tout cas dégg naa am wax xaw ma capitaine xaw ma lan ak lan xaw ma lan ak lan waaye daal ñu ngi nuy képp koo xam ne ndeysaan séeréer nga waaye di wax na it ñu ngi nuyu suñu mbokk alpulaar yi fu ngeen mën a nekk si biir réew mi rawatina ñu nekk bitim réew ndeysaan abit baa ngi xool ñaari mbëri mu mel ni que capitaine xool nañ ko ba pare capitaine tibb na suuf am lum cay léemu am lum cay léemu ndeysaan sànni na ko ci suuf. loolu la demee ma wasaare na ko. wasaare ne ko comme ni nga ko waxee waa Kër Massar ñu ngi may message di ñu bàyyi xel. ndeysaan ñu ngi nuyu nag képp koo xam yaa ngi yëngu ci làmb li ko tàmbalee Leewtoo li ko tàmbalee lu TV waa wasaare làmb Sénégal Buzz seen acti seen Buzz waay Guédiawaye info Guédiawaye TV waay. 2STV DTV Walfadjri Télé Futurs Médias Sen TV RTS la chaîne nationale waaye ñu ngi nuyu ñëpp waay maa la wax lii. wala ci yokkal ITV e suñu mag Boubacar Diallo ñu koy ziar moom c'est le maire. waaye kenn du suñu làmb. dëgg la suñu làmb ñaar fukk lay leen jëndi ko. lépp loo réer ci la directeur maa ngi nuyu. ndeysaan. as arbitre bàyyi waaye siffle arbitre siffle na. ñaari xale ñi si digg de capitaine door na. laa yi jëlee ba rappel na ko rappel na ko rappel na ko la am rappel na ko rappel na ko capitaine jongale na ko jongale na ko ay lay lay la laa. da la laa. lay la laa xale bi ndaanaan la lay laa. capitaine da doon forcer mu daw topp ko xale bi di reculer. xale bi di reculer. def deux pas trois pas en arrière daal di koy daan. daan na ko Talfa ndaanaan la. Talfa ndaanaan la. fooguma ko woon ci moom. fooguma ko woon. mi ngi ànd ak bu République des Valeurs mi ngi ànd Alaaji Bengali ma ñëw non ma gaawantoo du baax bàyyi ma rek mi ngi ànd Alaaji Bengali mi ngi ànd ak Babacar ñaa ñaa Gaajo ñaa bu Lamine Gueye mi ngi ànd ak Anta Silla Marème jeng sala way ndeer Maymuna Jallo Jeeri mi nga ànd ak ànd ak Amath Diouf mi nga ànd ak Abdourahman Babacar Ndiaye République des Valeurs Balla Niang mi nga ànd ak Moussa Diallo ñaari xale yaa ngi ci biir géew bi mooy grand combat bi dox si ki nga xam se ni moom mooy Kaaw Cissé numéro 2 bu écrit Dalifor ak ki nga xam se nii moom moo di moom moo di Concorde ndeysaan moo moo di kor Concorde nekk écurie Kër Mbay fal ndeysaan arbitre baa ngi xool ñaari mbëri grand combat baa ngi nii yem ak fukki juróom ndeysaan ci weeru février sëñ Modou ñaa dëgg ko ci arène nationale drapeau président Lamine Gueye ndeysaan arbitre baa ngi xool ñaari mbëri laa ilaaha illallaah maas li ma gën a neex ci journée tay bi sëñ Modou Niang xale yi mu boole yëpp adversaire de taille lañ. arbitre baa ngi xool Kaaw Cissé arbitre baa ngi xool Kaaw Cissé arbitre bi xool na Kaaw Cissé Concorde xam na lu mu koy joxoñ ndeysaan arbitre bi nee na ko kaay taxaw fii Kaaw Cissé ñaari xale yi tolloo nañ de. laa ilaaha illallaah ah combat yi fi am yëpp neex na de moom fexe leen ba gannaaw combat bi na dàq rek na gën a neex. combat bi ragal naa du yàgg de maas. ñaari xale yi dafa mel ni xaw nañoo bokk ay tegtal de. la ilaha illallah. Kaaw Cissé ak Concorde. day bañ mu wër ko. Kaaw Concorde day bañ Kaaw Cissé wër ko. la ilaha illallah. non Kaaw Cissé mooy bañ Concorde wër ko Kaaw Cissé moo ngem moo ngem lu vert li. moo pare. waaw. ndeysaan Concorde moo moo moo moo tent maas maas comme corde moo sol lu weex li moo tent bopp bi ay concorde ay concorde maas Kaaw Cissé numéro 2 numéro 2 mooy wax ak entraîneur bi sanq moom lañ jëloon ak Kaaw Cissé numéro 1 comme corde moo sol ngemu lu vert li moo sëgg nii di xaatim ci suuf xam naa ni étoile la fa def su ma juumul waa Père Thioune ndeysaan su fi amul won mu ñaaw Père ñu ngi lay ziar. yaa rafetal làmb Père Thioune jërëjëf ndeysaan mi ngi noonu Père Thioune Kam Kordu ak Kaaw Cissé numéro 2 mbokki SBT SBT Média point com ndeysaan Kam Kordu moo nu wan ginnaaw maa ngi nuyu nag ki nga xam si ni mooy sama xarit sama mag Alaaji Naar Mbaay ngeen dégg ko noonu mu nekk si micro central bi ndeysaan Papa Ndiaye ay dëmbub ca waya waaw si sa moo wan kanam amu Pikine arbitre baa wax ñaari mbëri ndeysaan cey DTV en direct la ko def ay jàmbaar la waaye SBT moom en direct ko de waaye <laughs> ko bàyyi ak ñoom de lay lay la maas maa la wax lii SBT dafa sangu waaye nelawut mu mel am na champion bu nekk am na am na course bu nekk sa wet. ndeysaan moom kenn dootu ko présenté ci làmb ndax saa yi booy ñaari bëre moom moo koy indi course maa lay ziar. maa lay bëggee sama jëwriñ. naka nga gisee làmb ji. waaw combat bu neex ñaari champion. waaye bu ñu fàtte ne euh, ki nga xam ne moom moo ñu wan gannaaw ngemboo ngembu lu vert li. Concorde champion bu mag a mag la. bëri na feek mbër yu mag a mag xale yu bëri si moom lañ jaaree pour dem ki nga xam ne nag mooy a jóg boole si di mbapat kii dafa mbapat toj a boo xam dañoo nekk si jamono doole laay xalaat si combat bu dee xeex Concorde mën na xeex Kaaw Cissé mën na ay bërekat lañ. combat bu neex lay doon. ay bërekat lañ combat bu neex yaakaar nga dina gaaw mbaa mu mbaa mu yéex. waaw Kaaw Cissé day yaakaar ne moo mën bu ñëw far day dox si kaw Concorde te Concorde xel lay bëree loolu man maa la ko wax incha allah. ki analyser loolu coach la ñu ngi koy zaar arbitre bi sifflé na ñaari xale lewaatoo ba gaaw na xeex nan ñaari mbër xeex nan jàppante nan lan mooy am wéy la la xatar bi la laa ilaaha illallaah Kaaw Cissé mi nga dóor ay épercule laa ilaaha illallaah xar la Kaaw Cissé ko bëgg a jàpp jeexal combat bi maas ñaari xale yi ñaari xale yi comme Gordo mi ngi bañ ñaari xale yi la ilaha illallah moo na am sunu xol na ñaari xale yi door mu daanu lan am la ilaha illallah la ilaha illallah xale yaa ngay bëree eh. la ilaha comme Gordo comme Gordo Kaw Cissé Kaw Cissé daan na comme Gordo comme Gordo da doon dóor Kaw Cissé daw pakete ñaari tànk yi doole xaju si tànk lii lan la maas doole xaju si tànk lii lu mu doot doole xaju si tànk dañ doon mu daanu mujjee ci bëri comme Kordu am na lu ko bett. laay lay la Kaaw Cissé waxoon na doole la yaakaar naa de. Kaaw Cissé waxoon na ko doole doxul jàmm. doole doxul jàmm maas. doole doxul jàmm. xale bi di ko ëpp doole. laay doole doxul jàmm bañ na ba sonn. laay lay la yëkkati na ko. na ba sonn bañ na ba la waaye doon bëreel xale la. Concorde. Eh, eh. Concorde de mérite woo bëri nga. Concorde jugal. laa ma ngi noonu. mi ngi jooy maas. laay ndeysaan. Concorde mi ngi jooy. laa ma laa ma ngi nii ndeysaan jëlal ma kaaw siise maa la ko wax waxoon na ma ko nag laa ilaaha illallaah dama woon na boot bi siflee damay dox si koom jàpp ko lu ma am jël laa ndeysaan loolu la wane de maas ñaari xale yi bëri nañ dëgg xeex nañ bëri nañ xeex nañ laa ilaaha illallaah amateur yi kontaan nañ mu mel ni coach waxoon na la ko wax waxoon na ma ko coach waxoon na ma ko ne bu jàppantee du du yàgg ndeysaan waxoon na ko waaye ki nga xam ne mooy comme corde mi ngi dem mi ngi jooy ndeysaan corde waaw comme corde lan moo xew waaw bëri nañ rëbëlu ci suuf mu teg ans mais dafa jógaat arbitre bi bàyyi action bi mu continuer waaw. action bi continuer ci la la daan. waaw xam nga li la yoon may. waaw xam naa ko xam naa ko yaakaar naa da nga ànd ak say mbokk def ko. dëgg la waaw mais bu découragé yaakaaru làmb nga. dëgg la dëgg la comme koor. nee na da ngaa teg fes ndax bi nga sukkee noonu da ngaa teg sa fes door a jug doo koo daan ndax diggante boobu mënoo fee sukk ba pare jug fi te sa yaram laalu suuf te nee na day def recours. non man xale ma fes. mais prise bi osé na de. waaw mooy yoon ñu lay xale nañ. xam naa ne da ngeen a mën a bëre. waaw dëgg la moo yoon mais dafa osé kaw. waaw mooy yoon ah, waaw mooy yoon. waa léegi. mbokki SBT Média point com. Ndagay Sarr la woon ànd ak doomu ndeyam Maas. journée sëñ Modou Niang journée bu Niang production. grand combat bi ki nga xamante ni mooy Concorde moom lañ fi daan ki nga xamante ni moo ko daan mooy Kaw Cissé numéro de lamb ji neex na saf na lamb. kon mbokk yi dañ leen di jox rendez-vous ci beneen lamb ak sbtmedia.com lool du mën a ñàkk ngeen ànd seeg njagee saan mbokk yi jërë ngeen jëf waaye kenn du Mass Djiné Cameraman hey Mass c'est le maire c'est le maire Djiné Cameraman maa kontaan ci moom hey Mass kontaan nañ ci ñëpp di nuyu samay xarit samay soppee fan si këlëb njagay saar bi te yaakaar naa ni li am ci làmb ñun ñoo ko gisandoo mas kontaan nañ ci yow borom banlieue bi borom géejawaay borom Pikine waaye lii lépp rek loo leen fi gis kenn du Serigne Modou Niang ñi ngi koy encouragé jërë ngeen jëf mbokki SBT media point com one love gros